maa créé APR may APR APR man la bi may xeex pour Macky Sall di falu fii laa ko xeexe kenn ñemewu la wax am nay député fii yu fi ne ñi ngi ci responsabilité dañu àndoon ak Ablaye Wade ci xeex boobu may wax ni lii du dëgg ñu naan dof baa ngi wax ma ñëw nekk seen vice président sañuñu ko bañ nekk président parlement c'est yow e yàllaa ko def mënuma jàppale Macky Sall wër àll bi doon xam bay gerte naan ko ndax li ma doon wax ma Macky xamu ko bi ñu nekkee ONCAD cent mille tonnes cent vingt mille tonnes moo doon capital semencier man ma def semence fukki at ak nangam xandi giñ doon defee contrôle densité Sodeva lañ doon am ma Diop Jalle PDS la woon moo nekkoon ak man Sarsara booba gone yi judduwuñu man may gérancé ko premier financement bi ma jot pour semence trente million la temps yooyu bu ma bokkee ci pouvoir bu ma xeex nañ ma laaj ci gerte gi ba pare may opérateur semencier import export maa ngi ko am 81 permis 80 am 82 passeport génn réew mi dox fu ne am lu ëpp 1000 visa fu ma dem ñu déglu ma ñu may xaar méridien ci gaz beeg pétrole bi maa koy ubbi man discours bi lay def ñu ne dof la duñ ko déglu jamani gerte gi niñ koy seddalee baaxul juuwul mooy premier point noté ko danaa def question orale parce que dama bëgg a wax gerte gi kenn du ko yàq prix bi baaxul bàyyi leen ñi leen di wër naan leen ay profession amuñu tool jiw kenn du ko jox ku koy jaay ji café de Rome ku am mënta produire une tonne nga jox ko semence dix tonnes cent tonnes mu jaay ko parce que subvention de l'État ci ne am na ku may jaay mille tonnes yu ngeen ko jox engrais mënu koo fournir parce que amul xaalis banques yi wóoluwuñ ko man ma mën a am deux milliards ci banques yi di ko laaj bokk ci pouvoir bi di opérateur économique président de la chambre de commerce d' industrie ak d' agriculture de Diourbel gone yi nga xam ne bu ñu faloo màkkee leen fal ni Cissé du wax di ko saaga du ma ko nangu bu ñu génnee ñaan ma cent mille un million bu ñu amee problème trente sept million laa def ci campagne législative yi député yi am na ñu ma ci jox ak i ministre xaalis 300 millions laa def ci campagne yu Macky Sall nañ ma laaj fu ma ko jëlee ah dana nangu ay Aïdara Sylla yori milliard à côté Jinne maa ko formé c'est un entrepreneur yori milliard man waruma yor ay milliard te jàppale pouvoir bi yor ay kayit comme ñoom jiite ay opérateur ñu fay ma 14 ans kenn mënuma chambre de commerce bu ñu ko renouveler man maay fay teg ka fa ne arrêté leen caaxaan yi ñu wax maa fii laay waxee li ma xam li ma xam bu ma ko waxee àddina tukki barke alquran al karim ay yat ngeen di fab duma ministre yi génnee leen ndax li ma xam xam naa ko nañ arrêté ku nañu jox la cëram man sama wal duma nangu ku ko taxaar di jëla ah. fab gone yu naan sàngara nekk ci tege ji taaw kafe de Rome ak hôtel yi def lu leen neex ñu jox leen ni bon ñu koy jaay ba pare ñu ni ñor na ci ñor na je défie quiconque nañ dem débat li ngeen fi wax ca du juuf ba léegi ni moo fi ñor mosu fee ñor xam naa àll bi dinaa def tournée mois de janvier bi ci àll bi laa jëm bu ngeen joxee statistique ni lii la danaa leen wax ni du lii ndax fi ngeen ko teg fan la man maa leen dàq jàng gën leen a xam gerte Modou jàng Fada xam na mi ngi nii toog Daaru Musti laa nekkoon ñoo dëkkoon bàyyam di suma xarit may waxtaan ak moom doomu baykat la mais xam na ne li ma ko wax xam na ko xam na ne xam naa gerte enquête laa nekkoon nekk fekk Saliou Sarr Abdourahmane Touré Sonar fet ma jaar damay lànk ba kandaaru et je vais informer tous les chefs religieux il faut ñu arrêter gerte gi ñuy jox di ko politiquer di ko jox ñoo xam ne ñi bayuñu amuñu tool ba pare ni ñor na jox leen engrais ñu jaay ko opérateurs yi il faut ñu trier ko ndax opérateurs yi leen wër ñoom PDS lañ nekkoon nax Ablaye Wade ba mu daanu ñuy défendre lépp ne baax na c'est pas vrai lépp ay kàcc la du dëgg c'est des mensonges et je le dis haut bu dee loolu nag ku wax Macky Sall dëgg ñu rey la sànni la nañ ma rey ma baleen xam ne ngor amatul fii bi may xeex ak Doudou Wade sama xarita ba léegi ñu koy di xeex ak PDS li ma Ablaye Wade defal kenn defalu ma ko vingt millions moo ko jëkk-jëkkati jox